suñu jëwriñ suñu xarit suñu suñu mag sëñ Lam Fall Kala nekk professeur d'anglais nekk koo xam si mën naa ni philosophe la ci yoonu Baye Fall ci ci waaye nekk koo xam si wax dëgg yàlla moom daa duggoon ci mbooy gi fukki at yu ak ñeent yoo xam si mën naa ni kenn gisu ko waaye fexe nañ ba <laughs> loqati ko ngir waxtaan ak moom ci xelum xalam mu nekk téere bu gànjar boo xam si képp koo xam si yaa ngi koy bàyyi xel di teewlu teewlu émission bi day gis wax dëgg yàlla fi jot a wax lépp mu nekk lu am solo loo xam si mën naa sax xëy na ba li ba bëri day na ci kaw téere bi rek waaye dëgg dëgg ci biir téere bi mën naa duggaguñ ci waaye sëñ làmp gannaaw ba nga leerlee ci laaj ak tontu yi nga xam si jot nañ ko seq ak ñu ñëw nag focaliser ci aspect littéraire texte bi ci ni ngay bindee maanaam Euh, xëy na ni comme nit moom day ñëw rek bind xëy na waaye yow fi ngay bind am lu ci bare bari lay explique fi nga koy sukkandikoo tey poème bi Barke Baye mu nekk euh, boo xoolee ay ay ay kii daal ay ay strophe trois vers par exemple yoo xam ne ay da ngay jël quatrain mm, yooyu daal ñu bëgg xam yow ba ban ton ak ban rythme ngay ëpp li ngay li ngay bindee. Euh, jërëjëf suñu Bamba man bu may bind lu ci bëri damay téye xëy na man bàkkat laa maanaam dama bëgg xiin moom xiinu Baay Faal yi nii xam nga ku dikk jàng ba pare ñun la luy bind sa thèse nga ni ci xiin yi te moo bind naa ko te li taxawoon mu bind ko damay ubbi foofu benn buntu li waraloon muy bind thèse boobu xam nga lu tax euh, boo seetloo ñi ñuy jàng ñiy jàngale fii li ñuy ay littérature orale amul kenn ku ci am xam-xam bu sori ci wàllu mbuuk loo xam ne lu muy jëf la mbuuk mooy musique du doon guitare ba xanaa ay guitare ak yooyu lañu man waaye ci wàllu cosaan yi lu bari xamuñu ko ci connaissance théorique bi rek lan am yaa ngi dégg boo demee itam ci ñi nga xamante ni si le ñooy tëggkat yi mbaa ñooy bàkkkat yi ñooñu ils ont ce que euh, j'appelle euh, la connaissance pratique, mais ça chope. Euh, quand il s'agit d'en donner une explication purement scientifique léegi nag ma ne maa jéggul de man maa ngi dugg ci tubaab yi xam nga université la ne mënta ñàkk njaxasu Baay Faal man xawma kan la ñuy wax bul boo jaxase bu ma ñaaxee jaxase daal ah ndax Baay Faal la waaw léegi ma comme man xam naa ci bii te jot naa def bii mën naa leen a boole waaye da ngay dem ba ci da ngay ànd ak ñoom kii dem ba fee càng kii dem ba fële càng léegi mujj gi naan da ngay génn dem Amérique ak dem France ak yooyu man gëw yooyu dem ay France ak ay Amérique yooyu tax maa jóg daal fii laay jàng ci réew mi ku ma mën a jàppale ma soutenir nga ñëw ku ko mënul ma bàyyi la ma toog sama xam-xam 2007 laa tàmbali thèse bi te boobu maa ngi def licence xam nga lu tax dama cee mos a def benn atelie ak sama professeur dama cee mos a def benn benn dossier mu ne ma lii mun nga cee binn thèse de doctorat xam nga ma ne ma def ko sacerdoce denc ko fii ci roog di dox ak moom maa ngi ba maa ngi ni may bindee mémoire yëpp mais maa ngi bàyyi man tàmbali naa sama thèse Euh, bi may dem ba ay euh, bi may tàmbalee rek daanaka muy euh, dama soutenir 2009 2010 ma inscrire thèse tàmbale bind tàmbale maanaam maanaam bind naa ko bu yàgg ba def ba tàmbalee ne bon xam nga thèse thèse ay ay étape la thèse moom mën naa ni sax fekk soutenir pareegut bi may toll ci wala ba ba nekk ci phase de rédaction beeg yu ni mel sama professeur bi xamal ma ni ma man ci li ma spécialisé wu bu fekkee soutenir nga ni ci man professeur Sougou xëy na CAMES mën naa indi ay problème ndax duñ fexe nga génn dem Amérique boobu nag man maa xaw a tànqam loolu euh, lu yàggul tamit dara sama professeur bu baax koo xamante ni si xam na li ma li nekk si man donte ñeneen mën nañ koo ñàkkal solo ndax xëy na ñu bëri maam liggéey ñëw jàngale fayu am salaire dem mais ko xam-xama ko ñor muy Xadijatu Jàllo mu nekk fii département anglais UFR anglais moomu njëkk moomu wooluwaat ba ren ji ba ma indiwaat dossier yi waaye bi ba ci biir ñu ne faaw mu kii dafa dugg ci anthropologie ak yu ne mel xam ne mu lay kon loolu la loolu la du ci man ah. xëy na kay li may indi ñoom ñoo amul ay professeurs mm. ma ni maanaam <laughs> ñu ngi jégalu maanaam sëñ làmp dafa bind thèse boo xam si thème bi dafa nekk ci ni ñuy jëlee wàllum ay bàkk ak ay ci yooy maanaam transposé ko ci ci mbind hmm? léegi nag ba mu ko bindee ba pare yaa wax 2007 moo ne sa ngay bind waaye mën naa ni ba mu pare ba léegi war naa wat kon environ 10 ans ngi nii thèse bi mu ngi tege mun ñoo fexe ba sutuñ lan moo tax nag maanaam jëmmi ñi ñi ko doon jàngal dañ koo jàngal ba nëpp moom mu dem thèse indi thèse am ñu ne ko sa thèse bii nga bind ñun nag amuñu ñoo xam te mën nañ noo mën nañ laa maam juriste bi koo xam si dana ko mën a dana ko mën a kii daal ci ci liñ maa xam. maanaam mbir yi dafa xaw a dafa lëj <laughs> eh, ndax xam nga fii dañuy jàngale littérature orale ngir mu ñi ñiy seetaan gën a am gis-gis bu leer daal ndax bu am na nu may waxee rek euh, day mel ni dama xaw a waaw waaw waaw wala dama am damay wàññi euh, daraja ñi nga xam ne ñooy sunuy sëriñ fële ca jàngu ba muy université euh, dafa di ñoom dañuy am lu ñuy jàngale mu tudd littérature orale oralité hmm? maanaam Euh, ni ñun lu ci ëpp wax lañ jiitaloon ci mbind naam ñun daa euh, sunu maam yi lu ci ëpp euh, daaw nu nekk di bind waaye lan la bëgg a wax mën na noo ñëw bu taaxuraan xawee ñu taaxuraan waxaale la seen soxla xam nga bu dee kasak la ñu jaarale ko ci bu dee laabaan ñu jaarale ko ci xam nga mbaa bàkk ak yeneen ak yeneen léegi nag maanaam am na loo xam ne wàllu làkk la lu nit di wax ci làmminam di ko tudd loolu du jafe-jafe ci ñu gëstu ko toj ko mu leer xam nga lii jafe-jafe bi mooy nun tànk sax day wax ndax kii tëb nii am nu muy tëbe boo ko laajee li nga tëb lu mu doon moo wax la fii laa ko teg bu mu ñëwee la waa ji kii tëgg daaneel nanga nga xam nga mbaa euh, euh, ñu daan nekk dëkk dëk dëkk di tëgg dara benn message ñu deko deko message boobu laa leen wax yooyu message yooyu ba léegi. maanaam waaw. waaw waaw waaw boo xoolee maanaam mm, ci mel ni ku jaan maat xam nga la jaan maatee nan lan daan def dañ lay dañ lay lugg waaye bu fekkente ni dëkk bi bi amul luggkat waaye dëkk bële la ne mais dañ koy tëgg. ku jaan mat sam xel dem ci dee bi nuy dund ak bu nuy dee yëpp sam xel dem ci dee saamaan xam nga buñ ko tëggee ñële dañ koy déchiffrer te loolu pour wax la de waaye ci ci sabar lay jaar wala ci xiin wala lu ni mel léegi nag maanaam nan lay na ñuy jëlee wax ji ci làmin wi di ko def ci xiin yi man nag ma niwaat leen nan la ñuy jëlewaat li ci xiin yi def ko ci livre yi loolu day xaw lëj waaye science yi ma indi yëpp mooy euh, jaarale ko ci lu mel ni phonologie ak phonétique ay langage onomatopée ci lu ci lu simple ndax ci projet bi la ñuy xamee ni kii li may wax ndax lu tege la ñu nangu ko ba mu inscrire woon ba sori si waaw waaye euh, xëy na euh, loolu lépp day wane ni li war a soppi li nu war a soppi bari na daal am na tamit lu ñuy wootee te nekkunu fa te nekkunu fa. waaw sëñ dañuy ñëw ci wàllum rythme bi muy barke Baye comme dama ko bind ci bëgg fàllu. bëgg fàllu maanaam. waaw bëgg fàllu bi may bi ñuy nekk xale eh, man xam ci Baye Fall laa yaru man Baye Fall rek laa xam. taaju bon sax daaw ma wax taaju bon allay xam nga lan laa daan def bëgg fàllu damay dem indi sama xiin sama morom yëpp man laan daan àndal boobu daanaka aw ma fukki at ñu may li may wax ñu bëri mënoon ko seede bëgg faalu dañuy dañuy da ngay da ngay baax naan te ndànk kii ki tëgg kii xam nga Serigne Bamba jërëjëf Pape Cheikh Rafal jaaraama xam nga. konti di wéyale. juma ju mag ja ca Touba soror bu mag ba ca Touba lamp lan ko woowe am daa di teg di dem di dem di dem di dem. marché occas nga Touba da ngay jaay ba ngoon dimbalax di dem te kenn du la juuti jaaraama galas xam nga rythme boobu. ci laa ci laa moom laa jël waa ci laa jël bind ci barke baay man dalal la baax dalal la baax dalal la baax allil woyu mbaax mokkal nga ko ñëwal tari njukkale ko ko gaa yi daw si leen may na la kër jabare ki doom xale bee ka doj sàllar dóorali pooj gaa yi tàccu leen tur daraja teraanga ji yëppit taxul nga bew alal ju lew lekk lu lew boo tëddee nelaw may na la jom sol na la fit teg la ca kanam dooleel na la ay ndami ndam lépp jëm kanam teral na buur teral baadoola yëkkati ko wekk leen ko wormaal ko te yéene ko ko yàlla buy may nit ku ko soob nit mënu ci dara soxor i iñaan lakk sab xool doo ci man dara lii sama baay laa ko way ci barke Baye ndax du du du waaw waaw mhm. lu ci bari um, noonu laay binde boo mhm. tax may jël tur woowu xalimaa xiin borom xalimaa xiin mhm. tëgg xiin gi ba muy riin ma teg ci daaj bi waaw waaye du caaginu saasu ne damay topp li xiin gi di rythme xiin gi rek daal ndax dana bàkk xiin ñuy way wala ñu sikar léegi nag ton boobu ñuy wayee wala ñuy sikare mën naa koo jël maanaam maanaam bindee ko bindee ko mooy mélodie mélodie aha cey Seex Rafaal bi ngay gis maanaam noonu la demee cey Seex Rafaal eh, cey Seex Rafaal mm, mm. cey Seex eh, comme li ñu naayaa binge lan koy wax waaw Kawsara la rek mi Kawsara ba Kawsara Faal paalin xam Euh, moom lay déglu man damay danaa mën di déglu xëy te kenn du tëgg li may dégg nag ci lay teg sama sama woy Thiès Fall bi noonu la de demee. 79 euh, Bamba daa mel ni mën nga téere bi de. téere bi dañ ko yër moo ah, mhm. waaw xala Thiès Fall. Thiès Fall da ngay ki kii bàkk. bu dee téewee gi man sax mën naa téye xeen gi di bàkk. di di woy lii duma woykat nag waaye dinaa jéem ndax maa bind xam naa euh, ton bi waaw ama ni daf may fiital ma jóg yëngal mu may jafal ma boy boyal su may feetal ñaanam di bal mu may jamal cey Seex Rafal wane na ma tewan na ma fital na ma fàtteewu ma moo may xalal ma dox doxal ku may taqal moo koy fetal tuutuyu tuy mu sedd guy jëleel gëdu yi maa ngi na xuy amul morom du am morom mooy saa moo may xorom koo xam ne kii buy joxoñ na kii ku ne kii torox nga fi bu leen ma gis moo ma ta gis li di gis moo ma gis moo ma def ma géwél ma koy wel moom may béggal jàngal na ma jàggal na ma jubal na ma ba jàddu ma yëkkati ma yokkati ma yuqatu ma yàqu ma wulululu ya lu xew ñu na sar xoole ya lamp fal kala sant war na ma santati war na ma sell war na ma sellal war na ma euh, jërëjëf macha allah sëñ Lamp kon mbokk yi daanaka comme ni mu ko <laughs> leeralee am na solo lool te képp koo xam si xëy na bëgg na mu am intégralité junni rek lay jar fépp foo nekk moo xam nga nekk fii ci biir réew mi nga koo am mu nekk téere bu am solo ñu bind ko nekk ci làkk bu wolof euh, boo koy jàng sax da ci gën a xam baat yu bëree bëri comme ni ko leer ci wàllum vocabulaire waaye tamit day nekk téere yoo xam si ñi nga xam si avancé wuñ trop ci làkk bu wolof euh, moom ci am lu bëree bëri bëri kon sëñ Lamp daanaka euh, nekk téere bëree bëree bëri yoo xam si xëy na mën ñu koo bàyyi noonu euh, ngir indi benn appétit rek ci nit nga xam si moo xam ne téere bi Cheikh Ibrahima ngi ci sëñ Touba ngi ci euh, waaye téere bi moom rax na maanaam saf na saf na sàpp ak saf na sàpp àdduna ak lépp politique ak jimboori waaye leer na naa ñi tamit waaye ci <laughs> ci wàllu ngéwél gi moom saf na ci saf ak ak ak yu bëree bëri na ñu bëgg a ñëw ci benn thème boo xam si da nga koo ràbb ak ay baatu anglais nga tuddee ko lovell maanaam lover moom su ma jur mooy mbëggeel xam naa ñun soriñ si baatuñ anglais waaye xam naa dañuy leeral lover moom loo ci jublu ak ni nga ko tënkee. waaw li nga wax da neex na ma wax ku bañ la nga doon daf fekk nga gën cee ñaaw eh, waxet ni kuy xalam di cee jaayu barke ba yaay borom eh, nun moom Eh, boo gisee eh, saa su ne nuy mën a dund ci wàllu diine nekk ay jëwrin ba noppi wala sunu sunu cosaan nag sunu mbati sunu aada sunuy mbiri bopp ñu mel ni ku ci fiir danoo xam ne tey jii lu bare bare bari buñ ko bëggee tontu du doon ci diine lañ koy tontoo de bu nu naan maanaam yéen civilisé wu leen maanaam hmm? ndax tubaab bi bi muy ñëw fii daf noo xamal ne amu leen civilisation amu leen histoire l'Afrique est ahistorique léegi nag lu ci bare buñ leen di tontu ci sunu cosaan la ñuy ñëw di leen tontu kon cosaan boobu bu réelee lan la ñuy tontoo hmm? looloo tax ma fonk cosaan te cosaan boo ko waxee da ngay wax ngéwël ah, parce que ñoo ne woon professeurs yi ñoo daan jàngale ñoo daan jubale waaw ah, waxuma nag voilà ñoo daan teg lépp si yoon waxuma nag euh, benn vision boo xam ne nit ñi mën nañ koy am une euh, euh, cette hiérarchisation malsaine de la société boobu taxul may wax daal mais ngéwël en tant que ay jàngale ay boroom xam-xam xam sa bopp xam fi nga bokk. Euh, danga daan gis sax ñu naan la ñaari famille wala ñaari xeet waaw waaw sax mi ngi si biir ah. da xalam-xalam bàyyiwul dara ah. waaw lu bari dugg naa si euh, lii nii boo gisee dama ko ràbb anglais wolof waaw euh, li waral yan saay may dugg ci biir sox ci anglais mhm. man anglais laa daan bind lu ëpp ci anglais laa ko bindoon mujj gi toog sax di tekkiwaat toog jël sama temps di di di tekkiwaat samay samay mbind moo xam yu français ak yu anglais di ko defaat ci wolof yenn saay nag ngir wane ni loola mi ngi fii waaye dafa am leneen loo xam ne dañoo nekk di ko lijjanti waaw muy muy muy sunu wolof waaw waaye boo gisee ci biir xam nga am na ay ay mbindum tubaab yan saa yi ma dugg ci poème boo xam ne lu ci ëpp taalif boo xam ne lu ci ëpp français lay doon wala anglais am na ci ñaar bala ñett xaw loveel bi boo gisee mbëggeel la love ak euh, toppaan mooy mooy mooy mooy toppaan bi el bi mu ngi jóge ci mbëggeel ah, el boo ci mbëggeel ma def loveel ah, am na ku ko way sama euh, grand frère sama mag Xaadim Fall muy évoluer Suède waykat bu mag la day dem ci seeni yi gën mag di fa di fa di yëngu ci wàllu musique ci wàllu mbuuk mooy musique hmm? euh, at first sight ci laa ni nërëm at first sight loo anglais day wax love at first sight mooy li ñu tuddee coup de foudre voilà euh, at first sight ci laa nërëm when I the light xol bi daal di doon këram a victim with a soul fight bëgg ko tax na ma gëlëm sparkling shining so bright saay gët fàttu man ku may sëlëm sailing and dancing tonight fépp fu ma jublu gis fa jëmmam lovely heart soothing starlight lëngoo fépp fu nu mën a jëm dissipating my dark sorry plight mm-hmm. uh, lépp ci mbëggeel la xam nga mbëggeel nag moom lépp ci mbëggeel la xaj fu mbëggeel amul moom noonoo fay am te noonoo fu mu am moom jàmm du fa am. Hmm. Cheikh Bamba waral faral di wax lu bari ci l'importance de l'amour moo xam xëy na plusieurs types d'amour ndax amour yi bari yaa amour filial yaa amour paternel maternel mais da waa lu ci bëree bari maam dans la vie tout est daal euh, waaye sëñ Lamp xëy na émission bi jeex na waaye laata ngay bay nga tàggu moom point bi boo gisee. ndax euh, xëy na ñun suñu borom def na taalif nañ téere lettre amoo gidd donte boo xoolee style ñoo ko bokk waaye rime yi nga xam da ci am ndax le professeur Souleymane Bassi Diagne ba mu koy interprète loolu la wax ci rime yi nga xam si dañ koy jàng ci nasaraani ay rime riche rime pauvre rime engrosé suite euh, euh, yooyu yëpp dañ ko cey gis yoo xam ci même booy poème bi nga mujjee déclamé dañ ko ciy gis mu aeg bi ak ëm baat yooyu <laughs> day nekk ñoo xam si fo problème hybride am nañ mbégte ndax euh, jotaay bi yàgg na waaye euh, profité nañ ci xam naa ni wax dëgg yàlla fukki at ñeent moom ku ko toog daanaka télé di la kii ak yëpp nga bañ tey occasionnellement Touba Vision ñëw rek am ko ci yow kon loolu dañuy sant sant wér di ko seedal mbokk taalibe yi euh, di nga xam naa di la jàllale nuyoo PDG Khadim Seck jamono ji mu nekk dakaar waa Touba ci kanam am liggéey bu am solo bu ñu def muy waa soxna Touba kanam yi nekk dakaar Dakar CICES def liggéey boo xam ñu ngi relancé waat activités yi mu nekk événement bu rek ci yoonu mu xëy na moo tax ñëwul waaye tey ci occasionnellement cant bu fàtte bi si ñu seen 30 ans xëy na euh, bu fekkente am na laaj bu ñu la a laaj boo xam si bëggoon nga ñu ñu laaj la ko yow te laaj ñu la ko nga leeral ko boo leeralee loolu ba pare euh, nga ñu ñëw comme en tant que jëwriñ euh, Jazboul Mouride ci Daahira bi Bichri am ay activité ñu faral di def mu nekk lu am solo ndax xëy na murit gi moom dañuy faral di wax xëy na bàyyi faale tey bu rombee kuréelkat bi rek jàpp kuréel jàpp yaakaar yaa yaa yaa yaa téye mbir yi daal te yéen niñ fi gis dafa rafet loolu ci jokkalante bi liggéey bi ci waañ yeeg ci koor geeg yëpp euh, boobu lan bañ jàngat la war a am ak seen diggante mu faati waaye lu ko jiitu moom mooy dañoo bëgg nga leeral ci émission bu ñu doon def ak yow jotaay bi ñu seq nan nga jàpp ni wala loo bëggoon loo xam ne laaj nañ laaj ñu ko après boo ci jàllee ñu bëggee ñëw foofu waa kay Mame Bamba jërëjëf ñuy sant bu baax euh, ci dalal gi ngeen nu dalal euh, lu ma bëgg a wax man de loo lu ma waxloo rek xanaa ma wax waaw waaye li nga xamante ni mënta ñàkk mooy euh, cant goo xam ne day jëm ci soxnaa doom ndax bindkat yenn saay nga sëgg te xelam di bind faal kaay reer ku baax kaay reer ndax ñun ay yaay faal la ñu ah, ay soxna ah, yu dégg daaj yenn saa ñu nga am sax waaye bàyyi moo yaa ngi waaw mbaa nga ni këj xam eh, waaye dañuy am compréhension ndax xel gis nga li ngay gis nii du sax kaaru xelum xalam bi ma dem mujj gi la eh, xaaj bi laa yóbbu te teewul dañ koo xaajaat xaajaat ko Hmm. waaw eh, man damay bind rek fu ma toll damay bind waaw kon nag te loolu nga yor njaboot donte nag yenn saay yi damay toog ba ci mbiir mbind mi ni ko jalax mel ni ku tiit daal dikkaat ci njaboot bi xam nga uufaat waxtaanaat wàcc xam nga waaw waaw waaw kon noo ngi faw ñu sant leen ah waaw eh, boo ma laajee sunu digganteeg daayira Mafatihul Bichri damay mbégte ndax ca njëlbeen ga sax daanaka am na nu mu doon demee duñ wax jazbul murid waaye li li sëriñ tuba maam Cheikh ni woon rek euh, Mbàkke bëgg naa fu càng gi sa càng gi yegg rek sunu njaam gi yegg foofu euh, te fu si sëriñ Bàmba samp maam Cheikh dana samp ca wet ga Euh, bi ñuy ñëw fii euh, nun ay Baye Fall lan man bi may wàcc université xam nga gars yi dañu ne boobu université d'excellence la merugul nii bu ma fekkee ay fekkoon ñu ay super sang la daan sol takk lonet di laak ay tubaab man ma ni cëpp indi samay xiin ak ay bagage gars yi ni waa moom mooy kat seeba <laughs> def tànk neen dugg resto génn waaye saa su dee xoola laajal ñi ma fi jàngandool masuma fee def benn examen ndax am na ma bokkaloon classe man moom màggatuguma demaguma fi ay at yoo xam ne ñu ne sama génération dee nañ ñu ngi may gis ñu ngi may seetaan masuma fee def examen boo xam ne damay dikk di ko defaat ni ma jàngee ba ni ma jeexale mosuma rattrapé xaw ma ko examen bi premier semestre deuxième semestre damay dikk raxas lépp takk jóg ndax xam naa ni waar wi mi ngi may xaar waruma mën a bàyyiwaat fële waar wi ci biti dikkaat fi di di rattraper loolu mal suñu borom la. bi may ñëw fii samay xiin laa indi xam naa ni moom dama war a liggéeyal maam Cheikh ndax suñu saa bi ma ko nee damay dem université mosuma wax ay mbirum eh, liggéeyal maam seex ci wàllu njàng mi moom njàng mi la gënoon a dama laa jàngaloo waaw yal na yàlla yokk ay leeram eh, léegi bi ma ñëwee. ma gis ni maanaam man man xaw ma lu dul Baye Fall man ay football ak yi gars yi di wax man xaw ko man man Baye rek laa xam waaw ak Sikar Madial dem ci tool yi xam nga man Baye Fall laa mën a dundal ku dul Baye Fall sax pour mu mën a def ak yow faaw nga am ay jukkoy Baye Fall hmm. euh, bi ma ñëwee ma woo ma woo waa Louga yi ñi nga xam ne ñoo daan ànd noonu foofu di yëngu ñu may fekk si fii. mais loolu day metti si ñoom ñuy bëgg di jóge ba Louga fii di daayira ak yooyu def na donte def nañ ko nag ki fi njëkk a teew di sëñ Sam Fall waaw ñëw may ma ay cant yu mag fii léegi nag bi demee ceetaan mi ñu doon seetaan ci la ca ruus te da doon ay waa Cheikh Ibrahima di ko ànd ak ñun ñuy doxale noonu di noonu ba mujj gi man moom fu guddi ajuma jotee danaa dem ci àll bi di sikar yenn saa yi benn nit fekk ma fa ñaar nit ñett mujj gi bi ñu demee ba xam ne loolu mu ngi dëgër si suñu ñu xam ne tamit lii moom du doon liggéey bi te sëñ Modou Mbenda Fall nekk fi di sëtub Cheikh Ibra maam Cheikh ma Fall eh, sëtam bu fi nekkoon di sëñ Modou Mbenda Fall eh, ñëw ànd ak ñun bi mu ànd ak ñun eh, teg nu ci yoon wi ndax. nun dañ doon làmbatu di jéem di amuk bëgg léegi nag moom mu ñëw euh, uuf ñëpp ñu samp Jazbul Murid léegi lu ko jiitu nag euh, dañ daan njëkk di dem daayira ma Fatihul Bichri euh, bëggoon faa toog comme njabootu maam Cheikh ci biir kër Serigne tubaa waaye boobu programme chargé nag tey imagineel bu gars yi waree pare kuréel def lépp ñun ñu dikk sikar boo moytuwul fala ni fanaan ba xëy suba gars yi dem jàngi mujj gi nag euh, tawféex suñu borom feeñ si noonu it ñu jot ndigalu doxal mm, ci la sëñ Modou joxe jote ndigal li ñu sos Jazboul Mouride waaye teewut comme ni nga ko tey ban fi ñëwee ba léegi noonu lay demee te ñoom fii ci campus bi dañ dama dama koy wax Baye Fall yi di leen ko wax man leen Baye Fall yi ñun ñii ñooy ñoog seen bâche yeeg seen ndab yi ñoo yem maanaam seen matériel lan ndax yéen da ngeen fee nekk ci liggéeyub seriñ Touba nun ñuy doon ñoo xamante ni si lee dañuy sàkku ngërëmal maam Cheikh Ibra kon sunu diggante warta mën a doon lu dul diggante Serigne Touba ak Cheikh Rafal looloo waral ñoom da ay sëriñ lañ leen def tey ji ndog yooyu ngay gis sëñ Cheikh Jëmb di ko yóbbul sëñ Muntaxa ñun fii ci université bi donte danaan bay ay sobleeg yu ni mel di ko yóbbul sëñ Cheikh Jëmb waaye day toog suñu ndog di ko yóbbul ma Fatihul Bichri di ko yóbbul waa Nuuru Daare nii waaw ak yeneen daare daayira bu fi nekk rek ñëpp ay relation yi rafet la na moom ñoom ba ay ñas ñas yéen yeeg laa yéen yéeg ñëpp waaw ñëpp rek ndax nun moom Baay Faal moom moom moom moom moom xajoon na ñëpp léegi loolu ban leçon la mën a am ndax jamono mën naa ne fi ñu koy gis bëriwul aussi. Hmm. xëy na tey da gis si benn campus wala benn daayira yoo xam wala ñuy tas si benn milieu. mais ku ci ne day bëri rek daal di ku ci nekk jàpp ne daal moom li ko war mooy na ci ne daal li ci des nag ci am na du ma ko waxee ci téere bi. mënuma hmm. cee jaaraat noonu ndax man li may bind damay bind nii rek mais ko téye sama xel. Hmm. sama xel lay jógee nag. <laughs> waaw waaye damay wax ne maanaam ñu bokk li nu gëm. bu fekkee mënunoo ànd. am na ku dëggalul ci ñoom ñaar mun na bokk ñépp bëgg sëñ tubaa gëm sëñ tubaa ba pare mënunoo ànd kon am na suñu mbir bopp kon yooyu foo ko gisee rek xamal ne suñuy mbirum bopp la waaw waaw waaw waaye moom feeg ñi ngi dox ci njàngaleem sëriñ bi danañ mën a xajoo ñëpp waaw te te suñu diggante rafet rek lay mën a def waaw rafet rek lay mën a def kon. kon jërëjëf sëñ Lamp Fall Kala kon mbokk yi nga xam si yeneen teewlu seen entretien nuñ ko mën a tuddee e, suñu jëwriñ suñu mag suñu xarit suñu lépp suñu sëñ Lamp Fall Kala nekk auteur xelum xalam nekk professeur d'anglais nekk koo xam si xëy mën naa ni day yëngul ci bari bari ci ko leeree waaye di bind ci e, koo xam si ku yaatu dënn macha allah di ko ñaanal suñu borom yokk fan wi lool guddal ko ndax ñu mel nii yoonu murit da leen a da leen a soxla rawatina li nga xam si moom lay incarné moom lay dund muy e, Baye Fall nga xam si dafa tàmbalee yaatu ci àdduna bi daanaka ngay gis ñoo xam sax duñ ay murit judduñ ci murit waaye nekk Baye Fall te euh, mën naa ni comme dafa nekk loo xam si moom euh, euh, da ngeen mën a buubaale ñooñu ñëpp boo waaw ñooñu ñëpp suñu borom daal di jox ñu mën cee di ziar sama jëwriñ sëñ Ibrahima Fall ñu koy wax fenn réew na moom nekk seen <laughs> mbokki taalibe yëpp suñu Baye Fall yëpp. Baye Ndiaga Diop. sëñ Ndiaga Diop Baye Fall. yàlla na saa borom yokki leeram maam jaara mi nga tudd. donte maanaam ma nga ca Allemagne. Hmm? moom nga tudd sama xel demaat ci Baye Ndiaga ndax lu gudd la woon ak càllala la Baye Ndiaga da daan ràbbale daan ràbb fépp fu mu gis ku baax day fexe nga xamante keneen ki waaw kii xamante kele xam nga li ñuy waxee y rien sans lien Baye Ndiaga nag ay lien la doon def maam jaara moom da cee bokk waaw Baye Ndiaga Diop it yàlla saa yokki leeram fa jàngale lu bare bari loolu tamit ñu ngi ciy gëstu àndoon liggéey yu bëri àndoon ak moom euh, ñàkkul xëy na daara ji rawatina commission culte dina am yeneen ñu ci feeñalaat ndax amoon na sax benn magasin bu ñu tuddee woon bëgg gëm ak jëf xam dañ daan topp ay conférence am bu ko defee ñu ñu ñu koy transcrire ba pare traduire ko en anglais français et allemand waaw ngir ngir njàng mi ngir ngir waaw ngir gën a yaatal daal ndax jamono yi yaatal lan toll jëf waaw euh, ñu ngi bëgg a amal ndajem kajar moo xam ne euh, ñu ngi ko dañ koo tuddee xelum xalam en spectacle vivant ndax bu boobaa xëy na yëpp day ah, ndax ci biir am na ay lépp lu mel ni ay lépp mag ñi dañ daan lépp di la yee ci àdduna di la xamal euh, bii nag dañ koy def lu mel ni sketch ah waa mondar ñoom dañuy ñëw ak yeneen ñuy yëngu ci wàllu culture euh, bu ko defee ñu def fexe lépp jàkk ñu ànd kook euh, IFR CRAC civilisation religion art et communication ah li a ñu indi ko ba université mooy gëm nañ suñu bopp gëm nañ li ñu yor ñoom it xam nañ ni loolu eh, dana amal njariñ eh, njàngaan yi le 3 juillet waaw le trois juillet lay doon xam naa daal eh, ay 17h incha allah wala 16h 16h 17h daal lan ko kale waaw soobee yàlla jërë ngeen jëf kon bokk yi ñu jàpp loolu dajam kaa jaare muy cérémonie de dédicace ñu koy waxee ndax moom bis bu nekk ak fa muy fël rek dañuy yokk baax ci baatu wolof lépp nag loolu nag ñu ko jàpp incha allah le samedi yoo lay tombeel 3 juillet 2021 eh, téere bii ñu téye muy Lam Fall Kala xelum xalam waa édition EJO génne ko ak Boubacar Boris Diop moom de jàpp nañ ne xëy na dana ca teew mu nekk cérémonie dédicace boo xam ne en ah, spectacle vivant ko bëgg a def comme sketch yooyu yëpp maanaam loo loo xam si dañ ko bind jëm nañ ko incha allah concrétiser ak en rapport en collaboration ak waa UFR CRAC. jërëjëf mbokk yi kon foofu la ñuy tàggoo di leen jox dig dige incha allah ci beneen jotaay ak beneen euh, euh, borom xam-xam bu mel ni sëñ Lam Fall Kala képp koo xam si rek dañ xaar leen Touba Vision dañ dikkee ànd ak yéen jotaay yu mel nii kon ñu ngi wàccee foofu suñ suñu kàddu di wax salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul